voilà salaamaaleykum euh, internet Sénégal ñu ngi am mbégte bu baax euh, di ñëw ci yéen tey fii Touba donc euh, fas yéene waxtaan ak rek ci. li nga xam ne moom la sëriñ bi tere woon fii ci euh, màggal gi maanaam ay comportement xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi pour rappel rek dañ ko dañuy tere fii ay góor yoo xam ne dañuy def ay teinte wala ay watu yi nga xam ne mooy dégradé aussi pour xale yu jigéen yi dañoo tere képp koo xam ne day poser ay cils wala ay solin yoo xam ne donc euh, méngawul ak lu ñu woote ci biir euh, màggal bi loolu tax moo tax nag ñu ne xaaral ñëw tey xool ndax restriction yooyu ndax respecté nañ ko ndax xale yu jigéen yi Euh, muur nañ ndax sol nañ loo xam ne euh, bu ñu leen gisee dinañ xam ne ah ñii kat dañuy ñëw pour màggal si. idem aussi pour xale yu góor yi ndax dinañ gis ñoo xam ne dinañ def ay degrade wala ay tent donc euh, topp ngeen ngeen topp ñu rek incha allah ñu xool loolu. voilà ñu gis ne sëriñ bi dafa tere woon ay dégradé ak ay tent fii ci màggal bi. restriction yooyu lan nga ci xalaat. waaw loolu moom bu ko sëñ bi teree lu war la ndax parce que jullit moom yëfi jullit rek la war a def. waaw mandargaay julli moom mooy da ngay yiw quoi waaw loolu moom bu ko defee moom da kaa war a def bu ko tere même buñ ko bàyyeeg buñ ko bàyyiwul yëpp lu war luñ bàyyi la ndax moom yëfi jullit moom mooy nga yiw sell sellal waaw loolu daal moom moom laa si gis man. mais ba tey biir Touba gis nañ ci ay cas yoo xam ne ay surtout ay xale jigéen yoo xam ne euh, ñuy ñëw posé ay xef wala sol solo loo xam ne wala méngoowul ak màggal bi ñooñu lan nga leen di wax. waaw loolu yi ba tey maanaam ñoom ñëpp ñu ngi ciy soññaat seen bopp ñu si bari moom avant ñuy màggal si programme nan ko ba defuñu ko moom waaw te it maanaam dëkk bi moo sell sell goo xamante ni moom ku fiy ñëw rek da nga kaa a waajal sellal ko nu mu gën a selle mooy li gën sëriñ bi dafa ay solin yoo xam ne méngoowul ak màggal gi euh, lan lan lan laa ci xalaat ma ne man de loolu li ma ñor la man ndax man mbiram Sëriñ Tuubaa rek laa bëgg xat mu jot damay màggal si ñii samay sët lañ ba ñoo ñëw na ma leen ne yëre yu xiw la la ñuy laa bëgg ñu yóbbu bëgguma kenn yóbbu fo colaay lu ñu bañ waaw ndax man wax dëgg yàlla ku bëgg sëñ Tuuba laa ku dogu ci sëñ Tuuba laa waaw <laughs> donc li ngay li ngay li ngay ñaax ñëpp daal mooy. bu ñu waaw te nañ solu solu nañ solu solu bu baax. te toppante ak ndigal li buñ def lenn lu ñuy tere man daal loolu laa bëgg xam nga suñ dëkk fële. wax naa ko fa dafa am benn ñaari waxambaane ma daje ñoom ma dégg ñu ngay waxtaan ñu ne tey de màggalu ndax ren de màggalu tubaa du bëri nit ma taxaw ne ko gees ne ko lan la lu xew mu ne ma la ñuy tere dafa bëri ma ne ko lépp sëñ Tuubaa lépp lu mu tere baaxut lépp lu sëñ Tuubaa tere baaxut képp ku bëgg sëñ tubaa bëgg li ko li ko bëgg mu ñor la dangay bàyyi tere loolu laa leen wax ki rek ma dégg ñu waaw waaw maire bi moom moom bëri na solo lu mu lu mu doj ci suñu wax ji ma ne ko ankay ndax yéen tudd sëñ Touba te man sëñ Touba ko dégg bu ma waxee naa la toon waaw maa nga boo jógee ba takkal daal waaw man sama baay baasaal la woon murit bu dëggu la woon te leneen ci moom ba tey moo ne ci man xat mu jot damay màggal si gis nga sama tànk bi nu mu néewee dañ ma noon bul dem ndax man laa dem ndax dangaa amee tànk may leen buy dog sax danaa dem dem soob na yàlla ak borom Touba buy dog sax danaa dem man maa nga jógee dëkk bu ñuy wax Bureñ ca Gàmbi. Gàmbi nga jógee waaw. pour magal gi kese moo la indi. moom ñàngal gi kese moo ma indi. sama tànk bii gis nga ni mu néewee. gis nga ni ma solee ko wax. góom bi ci ne dama koy denc sax moo tax ma def ko nii. ñu ne ma bul dem ma ne leen buy dog sax danaa dem. sëñ Touba jaral na ko su maay dem mu dog fa sax danaa dem. waaw kay. merci beaucoup donc euh, sëriñ bi dafa tere képp koo xam ne déposé xef ak solin boo xam ne. Euh, méngoowul ak lu ñu woote ci màggal gi euh, lan ban appréciation nga am ci interdiction comme lim ko teree. lim kon ñu jëfee ndigal rek bàyyi tere. yow mën nañu wax ne si jëfe naa ndigal nii. am na euh, mais ñooñu après dañuy sonal seen bopp rek buñ ko buñ ko deful même buñ ko defee tamit dañuy sonal seen bopp parce que nañ jëfe ndigal daal moo gën te noppale na tamit aussi. yëre yëre yu gudd ak loolu loolu coono la rek suñ ko deful tamit dañuy sonn donc dañ ko def rek moo gën te moo gën a noppale tamit loo xamante ne si moo mooy soo ko deful tey tamit ëllëg di nga ko def te boo muuruwul tamit boo muuru ba daj solo yëre yu jot nga rek man dama tàmm habitude bi moo tax damay muuru damay solo yëre man du ma def ay cils du ma def ongle du ma def mèche sax du ma ko laal tàmm naa yëre yi donc sonalu ma sax moo tax bi ñu joxee ndigal yi moom dama si sant alhamdulilah ok merci. waaw gis nañ ne sëriñ bi dafa tere ay solide yi nga xam ne méngawul ak màggal bi ak ay pose ongle ak ay pose xef euh, ban xalaat nga am ci euh, interdiction yooyu. waaw interdiction yooyu gars yi ñu ngi koy doxal de parce que fii moom dëkk bi dafa seel waxatuma laa ngay ñëw di pose ongle ak ay cils ak ay make-up loolu c'est pas naturel c'est artificiel fii moom boo fi ñëw da ngaa war a naturel jaayanteeg sëñ bi comme ñun niñ ko defee laxasaay dem ziar dem ñibbiwaat loo mais leneen loo si yokk rek bokk si ndax sëñ bi lu mu moom dañ ko war a doxal comme si dëkkam na ñëw. mais seen sëriñ bi màggal moo tax da ngeen ko am. man moom j'ai hmm. man moom fii moom comme dox laa ko de damay ñëw tout le temps. ni nga ni nga solo nii màggal bi su may ñëw jot takkaay ñëw. saa yu ñëw murid saade la heure bu may ñëw parce que dama fiy liggéey souvent moo tax. dama fiy jaabante du ma fiy géej nekkul màggal rek moom fi indi heure su may ñëw bien vrai que sama liggéey du du laaj li mais dama koy sol ñëw liggéey ñibbi donc avant ñuy joxe euh, fekk yaa ñu koy doxal. parce que man yàgg naa def naa fi deux ans bi ñuy tabax hôpital bi Seexul Xadim bi. je suis technicienne en électricité solaire. parce que booy ñëw fi xam nga ne loolu du lii mënoo ko sol liggéey. mais ay diir la rek. sooy liggéey dangay dem soo demee ba chantier nga summeeku. nga solal si tenue ba pare nga solaat sa yére ñibbiwaat c'est simple. doo am benn problème. ah elles n'ont qu'à le parce que lii nii boo jugee ñëw ne da ngay ñëw si dëkk bu tedd pour ziyaare yoonu murid tax laa jug yoonu lislaam tax laa jug diir la rek danga koy respecté soo ñibbee nga continué waat si li nga nekk su nekkee tamit mën nga ko bàyyi moo gën su lu jëm si ay xeef ay bët bët dafa sensible man moom duma ko def bugguma ko man moom de du ma ko def du pose xeef du ma pose ongle du ma make ñii xam nañ si dara loolu bugguma ko man man moom je suis comme ça